jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñëw rek amala ko jàngat lu ñeel mbirum waa APR ak seen candidature boobee di Amadou Ba ginnaaw ba nga xamante ne si ne tàmbali nañu campagne ba di rëpp ñaari fan ay xel yu bëree bëri di ñaaw njortu wala sax di teey ñuy amu ko ñaaw njortu si moom na kookee di Amadou Ba nekkatul candidat bu waa Benno Bokk Yaakaar moom kookee di Amadou Ba mu tàmbale campagne fi fii si Ndakaaru Njaay si Géejawaay rek jubale won foofee tamit samb Mbàkke daat ka fay toj rajax ndaxte nag foofee sa Mbàkke naam bu fekkee ne ay responsable tu euh, APR yu bëri bëri teewi wun boole mitin wala jàppale wun ko waaye nag foofe rek lanta fa nemmeeku mu doon mbooloo mu takk lool mu dajale euh, ko rek foofe sa Mbàkke moom kooke di Amadou Ba naam ana lan moo tax responsable yi nga xamante ne si ne ñoo bokk si APR ñëwuñu rek jàppale ki nga xamante ne si na moom moo di Amadou Ba ma nga xamante ne si na moom lañ jiitum réew ma tag rek moom moga su ne ma koy wax man ndigal te ndigal lay def kookee di eh, président de la république moo ko teg mu noon seen candidat moom kookee di amadou ba moom kooke di amadou ba ginnaaw ba mu wéyee waran wéyal ab campagne am nag ginnaaw sala sala wax ne dafa jot appel kooke di njiitum réew mi ko soxla nag lu irsan nag mu daat yi eh, rek la nga di yitteyam don dox wala kampanye. Eh, campagne ba fas na dem wuy jën ak kooke di njiitum réew mi ana nag lan la fay jëlee wala lan mooy tukki ko sa boobee njiitum réew mi woo kooke di Amadou Ba ndax naam dafay ñëw jële fa nouvelle bu naqari li nit ñi di romandaat nit ñi di ko waxtaane saa su ne ndax bu demee du naka naka nekkutoo candidat bu waa Benno Bokk Yaakaar ndax waa APR ñu si bëri bëri ñoom it eh, kan def seen candidat di ko jàppale jamono joojee mu di koo di eh, Boun Abdallah Dionne ñoom ñoomee tamit das koy jàppale bu baax si suuf kan nag kooke di Amadou Ba soo moytuwulee wuy googe moo wuyu njiitum réew ndax dina sa jëlee lu ko neex wala lu neexit la say jëlee moom kooke di Amadou Ba te jamono jii rek ñu si bëri bëri xel ñaar na moom nekkatul candidat